yëkkati nee yoo xam ne ndigal la. nee ci sunu kilifa gu tedd gii nu àndal. nee ci la ñuy jéem di nabi ngir mën a rek ndigalam. nee su kàddu yëpp noppee nag. nee na ni mu ibbee jotaay bi. nee mu tëjale ñu ko noonu. ci ay kaddu. ci ay kaddu. ak ay ñaan. ak ay ñaan. ndigal nag li tax mu neex. ndigal nag li tax mu neex. soo mënee jëfal. sëriñ Maguette nee soo mënee jëfal. soo mënul jéemal. waaye soo mënul jéemal. lu ci rafet lay doon. lépp lu rafet ci matam lay doon. lu manqué rek. waaye lu manqué. ñun ñu doon jéem. ñun ñu doon jéem. suñu yoon du ci nekk. suñu yoon du euh, am na benn nitu yàlla. wala ci saxaaba yi. wala ci saxaaba yi. ci malaayika ne amna ko koo jamu daf doon jaamu yalla jaamu ga yalla xir ko ci julli. jaamu nyari Mujuli julli. mu jullil yàlla ñaari rakka. mu jullil yàlla bi mu kàbbaree. taxaw na diiru fukki julli at. taxaw na diiru fukki at. mu rukko def fa diiru fukki julli at. def siggi taxaw. siggi taxaw. diiru fukki junniy at. diiru fukki junniy at. rot sujjoot. rot sujjoot. diiru fukki junniy at. diiru fukki at. ba yi pare. ba raka'i yi pare. mu sëlmal. nee mu sëlmal. jàkkaarloo ak suñu borom. jàkkaarloo ak suñu borom. ni ko xanaa tey day. ni ko xanaa tey. di nga ma fayaloo xam ni. di nga ma fay fay yàlla ne ko lii nga def. yàlla ne ko lii nga def. aw xeet ngi ñëw. aw xeet ngi ñëw. ci jeexantalu aduna ci jeexantalu aduna dinañ ko def ci ñaari minute. daana ko def ci ñaari minute. te la ñuy am. te la ñuy am. Azaka ja doo ko am. Azaka ja mo do doo ko am. ci aw yiw. ci aw yiw. mu ni yàlla lu waral loolu. mu ni ko lu waral loolu. mu ni ko da ngaa def li nga jëf. mu ni ko da nga def li nga jëf. ci sa coobaree bakkan. ci sa coobaree bakkan. te ñoom la ñuy jëf. te ñoom la ñuy jëf. dañ ko def ci ndigal. dañ koy jëf ci ndigal. moo tax ndigal am solo. moo tax ndigal am solo. doon nag lu raf la léegi. mu nekk nag lu rafle. léegi ci jamono léegi si jamono. ndigal. nee ndigal. dafa dafa dafa rafle léegi. dafa rafle léegi. nit léegi. nit ñi léegi. bàyyi ma yi sax ñoo leen ëpp kilifa. bàyyi ma yi sax ñoo leen ëpp kilifa. amatuñu amatuñu kilifa. yàq-yàq yi ko waral nag. yàq-yàq yi ko waral. bari na lool. bari na lool. waaye bi ci ëpp doole. waaye bi ci ëpp doole. mooy internet. mooy internet bi. bu ngeen amee seetlu. bu ngeen amee seetlu. bi mu duggee ci réew mi. bi mu duggee ci réew mi. ñii di wax de bu ñu mayoon tuuti. Eh, déedéet du ma xamante li wax. Ah. mbokk yi nu may nu tuuti rek dootu yàgg incha allah nu may nu tuuti rek incha allah dootu yàgg rek kàddu yi daanu nu àggale yitte yi nit buy wax bu dégg ay coow rek. nee na nit suy wax su dégg ay coow rek. day jaxasoo. day jaxasoo dootul xam li muy wax. ba kilifay am. ba kilifay am. doom ju sant Mbàkke. doom bu sant Mbàkke. wala ju sant si. mbaa ku sant si. wala bu sant Seck. wala mu sant Seck. wala kenn ci këru diine yi. mbaa kenn ci këru diine yi. jotaay bu mu mas a toog. jotaay bu mu mas a toog. ca mag yu baax. ca mag ñu baax ña. da nga leen di seet ñu boof. da leen di seet ñu boof. kenn ku ci ne. ku ci mel ni. mel ni. am picc ci sa kaw. am picc tong sa bopp. te ngay bañ mu naaw. da ngay bañ mu naaw. ndax ormal. ndax orma. nitu yàlla yi nitu yàlla yi. ma bu ngeen xoolee internet. ma ni boo xoolee internet. bari na lu mu bari na lu mu yàq. lool. lool am ñeneen ñoo xam ni. am ñeneen ñoo xam ni. dañu leen fabriqué bitim réew. dañu leen fabriqué bitim réew. jal leen ci suñu kaw. jal leen ci suñu kaw. dañuy sol ay koppati. dañuy soli koppati. di sol ay xaftaan. di soli xaftaan. di soli maraakis. soli maraakis. dugg ci jàkka yi. dugg ci jàkka yi. comme ñun. comme ñun. waaye la ñuy liggéey. waaye la ñuy liggéey. mooy lu mag ñi tabaxoon. mooy lu mag ñi tabaxoon. nañ ko jéem a màbb. nañ ko jéem a màbb. kon rikkuwaay. waaye rikkuwaay. ñun ñii murit. ñun ñii ay murit. doon ay xaadir. doon ñii doon xaadir doon ay tijaan ñii nekk ay tijaan bu ñu dajee teeg suñu kilifa yi bu ñu dajee tee ak suñu kilifa yi la la la ñee bëgg am la ñee bëgg am buñ ko am mukk buñ ko am mukk te jotaay yu mel nii te jotaay yu mel nii yu mel noonu da ciy feeñ yu mel noonu da ciy feeñ man dama leen di wax ni dinaa leen di wax ni ñoom ñii ñuy xeex ñoom ñi xeex li ñuy xeex li ñuy xeex Nan ay takbiirul yeddi naan ay takbiirul yeddi ak julli di ubbi bismillah ak julli di ubbi bismillah ak xabdu ak xabdu yu ñàkk fayda yooyu yu ñàkk fayda yooyu ci la ñuy nekk ci la ñuy di ci débat di ci débat te gis lu jar a wax te gis nañ lu jar a wax ndax gis nañ ñuy rey nit ñi gis nañ ñuy rey ay nit gis nañ ñuy jaay seen bopp gis nañ ñuy jaay seen bopp gis nañ góor jigéen ñi am na góor gis nga ñuy wecceeku xaalis am na ñuy wecceeku xaalis ak xeeti mbon yoo xam ne ak xeeti mbon yoo xam ak franc-maçon yi ak franc-maçon yi loolu ne loolu di wax sunna yi. di wax sunna yi. te bàyyi farata yi. te bàyyi farata yi. am na leneen lu ñu waroon a gën a. am na leneen lu waroon a gën a tal. fa tabaarakallaahu tabaarakallaahu. moo tax bokk na ci. moo tax bokk na ci. ñoom yi ñuy xeex. ñoom yi ñuy xeex. ginnaaw internet yi. ginnaaw internet yi. ñooñu dañoo bëgg a bëri doole léegi. ñooñu ñu ngi bëgg a bëri doole. moo tax ñun ahlu tasawuf nee ñun ahlu tasawuf ñu war a booloo war na noo booloo bëggante bëggante jàppante jàppante wóolonte wóolonte di yëkkateendoo di yëkkateendoo di dóorandoo di dóorandoo ba bañ leen a xajal benn prox bañ a xajal ñooñu benn prox ndool moo tax su may dégg moo tax su may dégg ku naan ku naan murid laa murid laa wala xaadir laa keenaa xaadir laa da nga may jaaxal da nga may sax jaaxal pour man pour man jullit yëpp benn lañ jullit yëpp benn lañ boo demee fee ci canaba boo demee canaba aw wana gang fo woo xam ne wana gang fa woo xam ne Touba canaba la tudd Touba Seck la tudd ku ko tudde kan moo ko tudde sëñ Ibrahima Seck sëñ Ibrahima Seck ku mu ko tudde kan la ko tudde sëñ Abdoulahat sëñ Abdoulahat ndax wëlërante ndax kolërante yu ñu amoon yu bi ko sëñ Abdoulahat ne keroog bi ko sëñ Abdoulahat ne dinaa la gane si la gane ci diirum ñetti fan diiru ñetti fan ci la ko kër ko muy kër gu sax muy kër gu sax bi sëñ sëñ Abdoulahat ni ñaadam ñaadam ni ni ko jabb loxo ni ko jabb loxo geestu mbooloom geestu mbooloom ni leen bu kenn jox sëñ Abdou Lahad ni leen bu kenn jox sëñ Abdou Lahad loxo. yaa jërëjëf. loxo loxo bii ma ko jox. sëñ Ibrahima ni sama loxo bii ma jox sëñ Abdou Lahad. na leen doy. yéen ñëpp na leen doy. yéen ñi ànd ak sëñ Abdou Lahad. yéen ñi ànd loxoom bii. loxo sëñ Abdou Lahad. na leen doy na leen doy. <clears throat> dalal ko fa. nee mu dalal ko fa. ñu jëflante yi ñu jëflante. ñu jëflante la ñuy jëflante. mu rafet lool. nee mu rafet lool. toog na ci canaba. toog na ci canaba. di waxtaan. di waxtaan. digganteem ak. digganteem. El Hadj Abdou Aziz. El Hadj Abdou Aziz. loolu way juru kii la. loolu way juru kii la. sëñ Alpha Mamadou. sëñ Alpha ba kàddoom àgg ci. ba kàddoom àgg ku jaan màttoon fii ci canaba. mu ne ku jaan màttoon fii ci canaba. boo demee Tiwaawan. boo demee Tiwaawan. teg sa tànk. teg sa tànk. manam bo ñëwee ci raay bi. bo ñëwee ci raay bi. tek sa tànk tek sa tànk. ci voix bi jëm Tiwaawan. ci voix bi jëm Tiwaawan. alaaj Abdou Simi waxanam alaaj Abdou Simi waxanam tek ko ci voix ba. tek ko ci sa voix ba. nga ti soli fi nga ti soli fi pour wax la ñoom it niñ jaxaso pour wax la ñoom fi seen jaxaso fi mu agol ki jur suñu suñu woy jur. nee ki jur suñu woy jur. muy Seex Canaba Momar Talla sek muy Seexu Canaba. maam Momar Talla sek ben xarit la amoon. ben xarit la amoon. muy mam Thierno Birahim. muy mam Thierno Birahim Mbacké. fi ci daru mo fi ci daru Moxti. wala ne doomam. nee doomam sëtam sëtam. daawul jóge ci man. daawul jóg ci man. yal na yàlla yokk leeram. yal na yàlla yokk leeram. daaw ci man la gàmmoo. daaw rek si man la gàmmoo. ren rek la gàmmu si wul. ren dong la gàmmu si wul. muy doomu sëñ Abdourahmane Mbacké. muy doomu sëñ la leen yàlla boole woon. nee na leen yàlla boole woon. dafa am taalibe góor gu mag. dafa am taalibe góor gu mag. bu naweti woon côté yooyu. bu naweti woon côté yooyu. ndox suuf laal ko. ndox suuf laal ko. ñu yóbbu ko ci maam Thierno. ñu yóbbu ko ci maam Thierno. avant ñuy àgg. avant ñuy àgg. mu génn àdduna. mu génn àdduna. bi maam Thierno ñëwee bi maam Thierno ñëwee ñu ne ko kii de taalibe góor gu mag la ñu ne ko kii taalibe góor gu mag la mu ne a kooku de sama la mu ne kooku sama mbokk la naa ci moom lu ne sañ naa ci moom lu ne daa di sang daa di koy sang sang sang jullee jullee rob ca daaru moom ca daaru muxti bindu lettre bind lettre yónnee góor gu mag yónnee góor gu mag bi ko góor gu mag euh, liire lettre bi bi ko góor gu mag liiree lettre bi. wëlbati lettre bi wëlbati lettre bi. bind ca ko. bind ca ko. dinaa la ko jaale si. dinaa la ko jaale si. dat sàngam te boo deful woon nii ma xam ne liñ lay ji yow Thierno du dëgg loolu kenn sañatu ko ci taalibe bi kenn. déedéet bi mu gan jee bi mu demee ci maam Thierno. ne mu dem seeti maam Thierno. ñu jëflante li ñuy jëflante. ñu jëflante la ñuy jëflante. loolu bu ko Baye Mouride daan nettali. nee su ko Baye Mouride daan nettali. am na foo xam ne bu fa àggee. am na foo xam ne su fa àggee. day jooy. day jooy. ba ba a àggalee waxtaan doog a àggalee waxtaanam ndax nee na mag booba la bi fii nee na góor gu mag bi muy ne ci maam Thierno baaraamam bii dañ koo laxas dañ koo laxas muy waxtaan ak maam Thierno muy wax ak maam Thierno ba maam Thierno ne ko waaw ba yàgg maam Thierno ko waaw góor sa loxo bi lu ci ne Momar Talla Seck waa sa loxo bi lan moo ci ne mu ko dama doon jëmbat ñaam bi mu ne ko dama doon jëmbat ñaam bi ca tokkoor ba ca tokkoor ba ca tokkoor ba bi may dagg bi may dagg paaka bi rëcc paaka bi rëcc noppalu ci sama loxo bi noppalu ci sama na loolu nee na loolu mel ni daa sol maam Thierno aw xaal. lu mat ay fan. lu mat ay fan. léeg-léeg day woo njaboot gi ñu ñëw woo njaboot gi ñu ñëw. ni leen xool leen góor gu mag. ni leen xool leen góor gu mag. ca yooyu jamono ca yooyu jamono. xam nga jumaay Canaba. xam nga jumaay Canaba. moo njëkk a taxaw ci Sénégal. moo njëkk a taxaw ci Sénégal. ci jumaay. Eh, ci jumaay ciment. jumaay ciment. ci jumaay ciment andi wi. juróom juróom juróom benn weer la ko liggéey. ci juróom benn weer la ko liggéey. booba lekk ba suur jafe na. booba lekk ba suur jafe na. la oto njëkk wàcc Sénégal la oto njëkk wàcc Sénégal. 1909. 1909 la góor gu mag war oto. la góor gu mag war oto. keroog bi mu demee daar Moxti. bi mu demee Daaru Moxti. oto ba mu gaare. oto ba mu gaare. da nee mag ñi. nee nañ mag ñi. dañ doon wut buum. dañ doon wut buum. defe ne dañ koy yeew. defe ne lu ñuy yeew la. comme fas comme fas. mu ne leen xool leen ni ko jamono wuyoo. mu ni yi ak njaboot gi xool leen Momar Talla Seck ni ko ni ko jamono wuyoo. muy jiyal boppam. nee na muy jiyal boppam. di dunde loo xam ni. bëgg a dunde lew lo xamni lo xamni mo koy bay mo koy bay lolou la daan waare njabot lolou la daan waare njabot gi neeg bam ko dalal néeg ba mu ko dalal ñukoy wax bay bam ko ne sa lo dal sa loxo bi mu ne ko paaka moo ma ci dal mu ne ko cey gor gu mak cey Momar tala sek fi nga tollu ci jamono ak wilaya nga jàkkaarloog sab nawle doon liggey ba dag sa loxo te amo complexe dima ko wax kuy wër nit yalla bu lay fa baye du am nit du du daj nit yalla mam Talla sek na kenn du ko jëm naani ne mu ne ko cerno da nga bax rek ndax bi ma ñëwee ba man yow la waaye li xaw léegi kenn xamul doon. damay résumé wax ji rek. mais dama ko bëgg a résumé sax moo tax andiwuma lii. waaw ndax jotaay bi yàgg. ndax jotaay bi yàgg bi. waaye bi mu génnee. waaye bi mu génnee. néeg bi mu ko dalaloon. néeg bi mu ko dalaloon. bi góor gu mag génnee nee bi góor gu mag génnee maam Thierno Birahim maam Thierno Birahim dafa dajale njabootam gépp daa dajale njaboot gépp ni leen néeg bii ni leen néeg bii bis ni ki tey bis ni ubbi kooti bu mu ubbi kooti wallaahi ubbeeku waatul néeg ba ubbeeku waatul ba ni mu wàcce liggéey ba ni maam Thierno wàcce liggéey ñu denc ko ci biir ñu denc ko fa maam Thierno fa waay bayti xool leen wóllëre yu rafet xool leen yooyu kóllëre yu rafet kon yenn wax yoo xam ne nee nun donga yi nun taalibe yi yenn wax yi yo xam ne fenn. yo xam ne fenn ay ndax fi la bok ndax fi la bok bëgg def ki am non bëgg def ki non fofu bu fa tarixa agge fofu su fa tarixa agge tarixa day haram ne tarixa day haram tifaqan tifaqan yamal ci jullit rek. ne yamal kon ci jullit rek. manam tarixa. ne tarixa. demé ba doonub arme. bu demé ba nek arme. di wane ni man suma dul mourid di wane ni suma dul mourid kudul mourid kudul mourid duma fon sa loxo duma fon sa loxo. du ma fóon sa loxo. doo lekk sama do na lekk talibé do na doonatoo talibé do na doonatoo sax do na doonatoo sax jullit. bàyyil tarixa bàyyil tarixa te dem jaamu ji yàlla dem jaamu ji yàlla ndax mag ñi ndax mag ñi lañ daan liggéey lañu daan liggéey ci wàllu tarixa ci wàllu tarixa gën a àggale nit ki ci bëgg a àggale nit ki ci yàlla waaye ci julli waaye soo yemee ci julli di woor di woor gëm yàlla gëm yàlla gëm yonent bi baax na waaye baax na waaye lii daa gën a wóor waaye lii daa gën a wóor fa tabaarakallaahu tabaarakallaahu ñu ngi nuyu sëriñ bi ñoo ngi nuyu sëriñ Daawuda di ko ziyaara baax noo koy ziyaara doomi sëñ Alpha Mamadou. nee doomi sëñ Alpha Mamadou Seck deuxième xalifa troisième xalifa maam Omar Ndak Seck. di rakku sëñ Madika Seck. di rakku sëñ Madika Seck bi ngeen xam. doonoon ku daanaka du woon rakkam. ne nekkul woon sax rakkam. man naa ni jëwriñam la. man naa ni jëwriñam la woon. doyloo woon ko lool. doyloo woon ko lool. bëggoon ko lool. bëggoon ko lool. fonkoon ko lool. waaye mu fonkoon ko lool. waaye sëñ Madika neexoon ku neex a bëgg lool. waaye ku neex a bëgg lool. ci njàmbaar. ci ak njàmbaar. ci mbaax. ci mbaax. ci ci yiw. ci tabe. ci tabe. ci xam boppam. xam boppam. fa tabaarakallaahu. tabaarakallaahu. yal na yàlla yokk ay leeram. yal na yàlla yokk ay leeram. moom mii mu nekk nit ku yiw. waaye mu nekk nit ku baax. nit mu nekk doomu soxna dëgg. lépp luy gàkkal doomu soxna. lépp luy gàkkal yàlla na ko. yàllaa ngi ci suturaal Serigne Daouda Seck. te mu yàgg ndakaaru lool. nee te mu yàgg ndakaaru lool. waaye li wóor yàlla. waaye li wóor yàlla. mooy doo ko fekk mukk. mooy doo ko fekk mukk. ci jotaay. ci jotaay. muy soppi aw toogaay. muy soppi aw toogaay. jotaay ba muy toog. jotaay ba sëñ Daouda toog. su ko fa bàyyam fekkoon. su ko fa bàyyam fekkoon. du ko soppi. du ko soppi. su ko fa maamam fekkoon. su fekkee. du ko soppi. billaahi du ko soppi. bu ko fa Seexna Tijaan fekkee. bu ko fa Tijaan fekkee. du ko soppi du ko soppi bu ko yonent bi fekkee bu ko fa yonent fekkoon. du ko soppi mu ànd ak doomam. mu ànd ak sunu doom. di baayam di baayam. muy baay Alpha Mamadou. muy baay Alpha Mamadou. di ndawul mu nekk ndawul Serigne Pape Moutala Seck. nii taawu sëñ Madické. nii taawu sëñ Madické Seck. moom sëñ Pape Seck. moom sëñ Papa Seck. lii ma wax ci sëñ Daouda. lii ma wax ci sëñ Daouda. rek moo nekk ci moom. moo nekk sëñ Papa Seck. ñoo bokkoon Daara. bokkoon Daara maa bokkoon Daara. kon moom mii ñoo bokkoon Daara. muy jëmm joo xam. muy jëmm joo xam. jaarul ci ak ndaw. jaarul ci ak ndaw. nit ku yiw la. sëñ Pape Seck nit ku yiw. moo tax sëñ ma dikkee. moo tax sëriñ ma dikkee. ak li ko yàlla yanoon. ak li ko yàlla yanoon. bi mu fi jógee. bi mu fi jógee. ñu na ah. ñu na ah. mbir mi dina doy waar. mbir mi dina doy waar de. est-ce que sëñ Pape Seck. est-ce que sëñ Pape Seck. expérience mën naa doxal mbir yi. mën naa doxal mbir yi. waaye leen xaw ma expérience am. man leen xaw ma expérience am. waaye ak niteem. waaye niteem. ak mbaaxam. ak mbaaxam. ak sellam. ak sellam. xam-xamam. ak xamam. yaram. yaram mën na koo jox tariixa bi man na ko jox tariixa bi man na koo yanuloo tariixa bi mën na koo yanuloo tariixa bi te dina ko yóbbu fu ne te dina ko yóbbu fu ne fa tabaarakallaahu tabaarakallaahu biig la ma maas la ma maas woo ni ma Pape sëñ Pape Seck waroon naa ñëw ni naa ñëw waaye dafa am soj da koo song waaye am soj da koo ba yebal na Baye Alpha ba yebal na Baye Alpha Baye ko am képp ku ko am jërëtul ngay sonn waaye jërëtul ngay sonn nag mën naa dem fu ne mën naa dem te mi ngi dem fu ne te mu dem te fu mu dem canaba siggi fa canaba siggi fa yal na yàlla guddal aw yal na yàlla guddal fanam tabaarakallahu tabaarakallahu mu xaddam yëpp ñëw nañ ne mu xaddam yëpp ñëw nañ alaaji Pape Dieye ngi alaaji Pape Dieye mu nga nee toog sëñ Ibrahima Diagne ngi sëñ Ibrahima Diagne mu ngi nii toog sëñ Ndiaga Diop a ngi fi sëriñ Ndiaga Diop yaraax mu nga nee toog sëñ Makhtar Diop a ngi sëriñ Makhtar Diop mu ngi nii toog sama waay la woon nag ay jamono ne ay jamono sama waay la woon waaye léegi xamatuma ci moom dara waaye léegi xamatuma ci moom dara tabaarakallahu ñoom Gora Sarr ñoom ñëpp rek ànd ak maa ngi ànd ak sëñ Birame Seck. nee maa ngi bi ngeen xam. ak euh, sëriñ Mass Tall. ak sëriñ Mass Tall. doon magu nekk magu xale yi. ku ne ak Baye Alé Thiam. ku ne xam diggante ak Baye Alé Thiam. dëgg yàlla Baye Alé yal na yàlla yokk ay leeram. nee Baye Alé na yàlla yokk leeram. na yàlla yokk ay yërmandeem. taalibe pire la. nee Baye Alé Thiam Baye Mass Thiam mi taalibe pire la. waaye maasit. waaye maasit. ku xam baayam la. nee na ku xam baayam la. xam nga nit. nee na nit. di nga ko jur. di nga ko jur. ci faratas yàlla. ci faratas yàlla. ak sunna si yonent bi. ak sunna si yonent bi. waaye bu sa mbubu oyofee. waaye bu sa mbubu oyofee. man ngeen a dem jamono. man ngeen a dem jamono. dootu la defam nawle. dootu la def nawle. du la nawloo ci dara. du la ci dara. waaye maas. ni mu gëmee ne Baye Alé ko jur. ni mu gëmee ne Baye Alé ko jur. noonu la ko gëmee. noonu la ko gëmee. noonu la ko noonu la ko wóoloo. noonu la ko fonke. noonu la ko fonke. ba tax na. ba tax na. lépp euh, meñet bu fi Baye Alé bàyyi woon. bépp meññet bu bay Alé Thiam bàyyi. Euh, lu mu fi jëmbatoon ba fi. lépp lu mu jëmbatoon bàyyi fi. lu mu am lu mu am moom maas. maas lu mu am rek. jënd na ko ndox. jënd na ko ndox. ngir suuxat loola. ngir suuxat li fi bàyyi Aly Thiam bàyyi. kilifa dëgg la. nee maas kilifa la. sama xamee moom. maas sama xamee moom. yàgg na lool. yàgg na lool. mu jaare ci Papa Ndiaye. ci Papa Ndiaye mii tëyeeru maam Amary Ndack Seck. Papa Ndiaye. Papa Ndiaye. jëmm la joo xam ne. jëmm la joo xam ni. day jàpp te du ba. wóllërey ñaar fukki atam. ko kóllëreem ci ñaar fukki at. fanweeri atam. fanweeri at. ba tey. ba tey. heure boo ko fëggee. heure boo fëggee Papa Ndiaye. di fekk ñooñu ak moom. da fekk mu ngi moom. man dey. man dey. sama ruq see la muy xat-xat. sama ruq la muy xat-xat. bu ne darees canaba. bu ne darees canaba. feneen foo ko gis. feneen foo gis Pape Ndiaye. day ñëw nuyu si la rek. day ñëw nuyu si la. waaye bu ñëwee. waaye su ñëwee. sama kër lay gaare. sama kër lay gaare. wàcce valisam. wàcce valisam. wàcce xaleem. wàcce xaleem yi. wàcce soxnaam. wàcce soxnaam. doog a dugg ci dëkk bi doog a dugg ci dëkk bi. ndax canaba gépp moo leen di. ndax canaba gépp moo leen di jël. jamono jooju moo leen di ñëwal. jamono jooju la ñu yàlla boole. jamono jooju la ñu yàlla boole. man ak moom. man ak moom. ak maas. man ak maas. booba. nee na booba. kenn ci ñun. kenn ci ñun. ku am téeméer. képp ku musaan am téeméer. wala ñaar téeméer. mbaa ñaar téeméer. day rëy lool ci yow day rëy lool ci yow. fa tabaarakallaahu tabaarakallaahu. boobu ba léegi. boobu ba léegi. lépp di rafet. lépp a ngi rafet. waaye moom mii. waaye moom mii. mu ciy joué rôle bu am solo mu ciy joué rôle bu am solo. ni ñëw leen dugg. leen dugg. lu mu am. lu mu am. gàmmu kajoor rek la koy xaaree gàmmu kajoor la koy xaaree. xanaa ak gàmmu gu mag. xanaa ak gàmmu gu mag gi. moom it lii ma wax ci maas. nee lii ma seede ci maas Thiam. moo ne ci moom. moo ne ci papa Ndiaye mii. baaye mu nga tëdd waaye lenn lu fi bàyyam bàyyi. waaye lu bàyyam bàyyi. ci kóllëre. ci kóllëre. suuxat na ko. Bam Ndiaye suuxat na ko. ba mel ni mu war mel na mu war a mel. sëñ Modou ñu ngi leen di jaajëfal sëriñ Modou ñu ngi leen di jaajëfal. sëriñ Ndiaga. sa Baye jërë ngeen jëf jërëjëf. ak bokk ak bok lii rek la. lii rek la dox ak wax rek la. dox ak wax. yàlla dogal na xale yi. yàlla dogal na xale yi. seen baay nekkatu fi. seen baay nekkatu fi. seen yaay nekkatu fi. waaye mate ngeen ko sëkk. waaye yéen ñii yéen ko mate sëkk. xëy na gi bëriwul. xëy na gise gi bëriwul. waaye maa ngi dégg lépp. waaye maa ngi dégg lépp. li ngeen di te a ngi a woon ak seen i waajur. ngeen gisante woon ak seen du ngeen sëgg. du ngeen sëgg. yàggal. yal yàlla wéral cër yi na yàlla wéral cër yi. ñoo ngi nuyu. ñoo ngi nuyu. suñu way jur wi. suñu way jur wi. soxna na soxna Mbène. di way juru Papa Ndiaye di waajuru Papa Ndiaye di waajuru Papa Ndiaye. bu ngeen déggee ñu naan baax yaay. boo ngeen déggee ñu naan baax yaay Couture. kii a tax muy wax. kii moo tax mu dippee atelier boobu baax yaay Couture. ku fonk yaayam la. nee ku fonk yaayam. ku bëgg yaayam la. ku bëgg yaayam la. xëy na loolu dinañ ci profité. nee loolu daan ci profité. laayante ci biir. laayante ci biir. ci nit. nee ci nit. nu war a mel. nu mu war a mel. ak waajuram ak waajur. waajur. dafa sori ci doom. nee dafa sori ci doom. daa sonn wajur wo xam so amone wajur wo woo xam ne day mandi day mandi wala muy jaay bopam ma muy jaay bopam la la war yow la la war yow dom rek nga dom rek nga ormaal ko ormaal ko sàngal sàngal suturaalal suturaalal tek ko fi nga tek ko fi nga tek rawati na ko am wajur wo melni mom rawati na ko am wajur wo melni mom moom bayam baayam bayam baayam liggéey bu rafet liggéey bu rafet ba yàlla jële ko fi ba yàlla jële ko fi mu uuf njabot mu uuf njabot gi motax motax Papa Ndiaye. Papa Ndiaye. lu mu am rek. lu mu am. ni yaayam. ni yaayama. moo tax dara jomb ko. moo tax dara jomb ko. di nuyu Soxna Mbène. di nuyu. Soxna Kine Seck di Soxna Kine Seck bu Serigne kii bu doon góor. nee na kii toog bu doon góor. mooy xalifa bi. mooy nekk xalifa bi. yàlla dogal muy jigéen. yàlla dogal muy jigéen. waaye jigéen ju man góor. waaye jigéen ju man góor ju yiw. doon nit ku yiw. nekk nit ku yiw. nit ku baax. nekk nit ku baax. nit ku laabir. waaye nit ku laabir. ku mën a rafetal. nit ku mën a rafetal. rafetal dong nga tax. rafetal dong a tax. mu xëyee tey canaba. mu xëyee tey canaba. mënoon na ni. nee mënoon na ni. Pape Serigne Pape dem na. Serigne Pape dem dem na. wala diggante njabootu sëñ Madické diggante njabootu sëñ Madické kenn doyu ko ci kenn doyu ko ci moo a moo ci war a taxawal boppam moo tax ni jamono xate moo tax ni jamono xate mu jaayante mu jaayante ba ñëw teew ba ñëw teew jërëjëf Seck soxna kenn jërëjëf yal na yàlla fay a yiw yal na bokki taalibe bokki taalibe yi ngeen jëf nit deesu ko lekk. nit kenn du ko lekk. deesu ko naan. nit kenn du ko naan. dañ koy jariñoo rek. dañ koy jariñoo. ku ne xam na ne tey dimanche la. ngeen xam na ne tey dimanche la. nit bu liggéeyee lundi. nit su liggéeyee lundi. ba dimanche. ba dimanche. war a mën a noppalu. war naa mën a noppalu. kon fi ngeen jógee. kon yéen ñëpp. fu ci waay jóge te ku ne xam na ni ku ne xam na ni ku ñëw fii ku ñëw fii paas la indi paas moo la indi te séentuwoo ko fi te séentuwoo ko fi pour delluwaat pour delluwaat kon nee na kon yii yëg rek la yëg moo leen indi yal na yàlla fay leen yal na yàlla fay leen damay wax toujours ni dinaay wax toujours ni nit deesu ko lekk nit kenn du ko lekk deesu ko naan kenn du ko naan dañ koy jariñoo rek dañ koy jariñoo bu noppee jariñee su noppee am njariñ donte yéen a bokk ndey ak baay donte yéen a bokk ndey ak baay sànnil fële nee sànnil fële amatul benn njariñ amatul benn njariñ du ngeen bokkee ndey ak baay. bu ngeen bokkee ndey ak baay. te yéene wula dara. te yéene wula dara. te nga yëg ni te nga yëg ni yor na. fukki junni. te mënoo am añ. te mënoo am añ. te yëg pasar pasare alalam. wàcc ko waaye wàcc ko. te dem wuti leneen kon lii ngeen def. kon lii ngeen def. ak yëg la ak yëg la. yal na yàlla barke alxuraan barke karim. barke yonent bi Muhammad. maas day mënoon naa invité wut ay seize. nee maas mi mii di borom xew yi fi moo na am ay seize wut ay baas wuti baas ndax loolu doole rek ndax loolu doole wër sa ko def waaye nit ñi waaye nit pour fëgg ku ne néegam ku ne nga fëgg néegam ni leen dem leen daje sama kër ni leen daje leen sama kër ah loolu loolu du xaalis ah loolu xaalis mënu ko de yéeg rek moo koy maye yéeg moo ko mën a maye kon lenn lu mu doon def ci yéeg kon lu mu doon def ci yéeg na ko gën a góorgóorlu maas caam na ko dolli soxna maane soxna maane na nga gën a ci njaboot gi na nga gën a góorgóorlu ci njaboot gi góorgóorlu ci njaboot gi góorgóorlu ci njaboot gi yàlla bàyyeendi yow la fi yàlla bàyyeendi yaay ndey yaay bàyyi yaay ndey yaay bàyyi fexeel ñu nekk benn na nga fexe ñëpp nekk benn ñi mu bokkal bàyyi ñëpp ñi mu bokkal bàyyi ñëpp ñëpp ñi ngeen bokkal bàyyi bàyyi aale nee na képp bu ngeen bokkal bàyyi aale fexe leen ngeen di yëkkateendoo fexe leen di yëkkateendoo di dóorandoo dee leen dóorandoo lu ngeen mën a def nag lu ngeen mën def lu dul loolu lu dul loolu looloo ko gën looloo ko gën ndax ku fi bàyyi mbokkam nee ku fi bàyyi mbokkam ma nga ma nga wuti mbokki jàmbur nee day uti mbokki jàmbur na nga def nag ba mën a jëflante ak mbokki jàmbur ni ngay def nag ba ànd ak mbokki jàmbur boo ko ak say waaye soo ko ak say mbokk mën dund ak ñoom waaye di dund ak ñoom kon nañ leen rafetalaat kon nañ leen rafetalaat rafetal àdduna rafetal àdduna xam amul solo xam amul solo jeex na ba pare jeex na ba noppi àdduna moom àdduna dañuy kandang kandang dañuy kandang kandang ngay dox rek da ngay da ngay toog ak nit da ngay toog ak nit ngénte ngénte nga ñibbi nga ñibbi ñu woo ñu woo ni la diw de ni la diw faatu na xanaa du mi ma toog nee na xanaa du diw mi ma toogaloon. ñu ne daa julli takkusaan rek ñu ne daa julli takkusaan rek. dugg néegam dugg néegam génnaatul génnaatul. kon àdduna amul solo. nee kon àdduna amul solo jërul ñaawal. nañ raxas xol yi. nañ leen raxas xol yi. yéenente. nañ leen yéenente jàmm. bëggante. nañu leen bëggante. téyente. nañ leen téyente. te yàlla rek tax te jëmm yàlla ji tax. te loolu nag. loolu. képp ku gëstu sab xol. ku gëstu sa xol. te gisoo góor loolu ci yow te gisoo góor loolu ci yow. gëmal ni. gëmal ni yaa ngi julli rek. yaa ngi julli waaye sa jullite. waaye sa jullite. des na des na nit. nit bu doxee bu doxee ba timis ba timis reer reer naafila naafila teg tànkam teg tànkam ci kaw lalam ci kaw lalam jël boppam jël boppam teg ci ngegenaayam teg ci ngegenaayam vérifier xolam war na vérifier xolam yëg ni yëg ni am na koo xam ni am na koo xam ni yéene naa ko safaan yéene naa ko safaan am na koo xam ni am na koo xam ni su ma sañoon mu torox su ma sañoon mu torox am na koo xam ni am na koo xam ni lam sol neexum lam sol neexum am na koo xam ni am na koo xam ni lu tax muy tabax kër lu tax mu tabax kër boo yëgee loolu ci sa xol saa yoo yëgee loolu ci sa bi yëgal ni yëgal ni ngay julli rek. yaa ngi julli. waaye doo julli waaye nekkoo julli. ab jullit. ab jullit dëgg. dëgg. li mu yéene boppam li mu yéene boppam. la war a yéene. loolu la war a yéene. ku naan ashadu képp ku naan ashadu an laa ilaaha illallah. noonu la ko war a yéene noonu la ko war a yéene. fa tabaarakallah tabaarakallah. kon nañ raxas xol yi. kon nañ leen raxasaat xol yi bëggante. nañ leen bëggante. yéeneente yéeneente jàmm jàppante. nañ leen jàppante. te yàlla rek tax te jëmmi yàlla ji tax. yal na yàlla jàppale ñu. yal na yàlla jàppale ñu. yal na fi yàlla def jàmm. yal na yàlla may ñëpp jàmm. kii ñu fi doon tudd. kii ñu doon tudd. yal na ñu dund. yal na ñu dund. ba ëllëg ba ëllëg. ñu tiim ko. ñu tiim ko. di ko maye. di ko maye. yàlla mën nañoo may kattan. yàlla mën nañoo may kattan gi. yàlla na yàlla may ñu fanu gudd. yàlla yàlla may ñu fanu gudd wi. lii nag li muy misaal. li lii nag li muy misaal. mooy borom kër gi. mooy borom kër gi. bu sañoon. bu sañoon. njabootam nekk benn. waaye njabootam nekk benn. kon njaboot gi nañ ko ci jàppale. kon njaboot gi nañ ko jàppale. takk jabar takk jabar yalla ko daganal yàllaa ko daganal yàllaa ni fankihu maa taaba lakum mina nisaa'i masna wa sulaasa wa rubaa yàllaa ni yàlla moo soo calculé day doon lim bu bëri day doon lim bu bëri am sax ñu naan am sax ñu naan alquran alquran wutul dayo wutul dayo am na ñuy takk lu leen neex am na ñuy takk lu leen neex waaye loolu nag bakkan la rek waaye loolu moom bakkan dong ñeenti gor daal ñeenti gor keneen koo ca teg keneen koo ca teg da ngeen di njaaloo rek da ngeen di njaaloo da ngeen a topp seen bakkan da ngeen a topp seen bakkan waaye li ñuy yàlla digal waaye yàlla li mu digle mooy takk ñeent mooy takk ñeent kon nag comme yàlla ñu ko digal comme yàlla ñu ko digal am góor ñu ñàkk fayda am góor ñu ñàkk fayda ñoo xam ni ñoo xam ni li leen yàlla digal li leen yàlla digal dañ koy daw dañ koy daw maanaam ñimewuñu nit ñimewuñu nit tax tax ñimewu ñoo takkaat ñimewu ñoo takkaat léegi ñime yàlla ñime yàlla ñime doxaane ñime doxaane xoolal googu waye di xoolal googu waye di yàlla nee na yàlla nee na takkal takkal benn benn ñaar ñaar ñett ñett ñet ñeent wa in xiftum alla taadilu nag soo ragalee ni mënoo maandu ci seen diggante nee soo ragalee ni mënoo maandu ci diggante yi nga yem ci kenn yemal ci kenn bu la wóoree ni bu la wóoree amoo maandu teg amoo maandu teg boo jëndee ñaari dal boo jëndee ñaari dal jox kii benn jox kii benn jox kii benn jox kii benn boo yoree ñeenti junni boo yoree ñeenti junni ñuy ñeenti soxna ñuy ñeenti soxna ku ne nga jox ko junni ku ne nga jox ko junni bu fekkee ni yoroo jooju jikko bu fekkee yoroo jooju jikko yemal ci kenn yemal ci kenn waaye nag bu fekkee ni yor nga jooju jikko bu dee yor nga jikko ji sañ ngaa takk ngaa takk ñaar ñaar ñett ñett ñeent ba ñeent yokku xeetu yonent yokku xeetu yonent rek la moo tax moo tax maas am ñaari soxla maas am ñaari soxla waaye ak rafetal waaye refetal moo tax moo tax doom ji gé eh, tudd doom ji tudd judd judd mu ni tuf ci nop bi mu ni tuf ci nopp bi tudde aawo bi tudde aawo kon bëgg na lu rafet kon bëgg na lu bu la tuddee doom nit bu la tuddee doom bëgg na la bëgg na la nit bu la tuddee doom bu la tuddee doom bu yoroon àjjana bu yoroon àjjana balaa kenn dug balaa kenn dugg nga dugg nga dugg ca kon ñaareel bi mu takk kon ñaareel bi mu takk du mbonuk aawo moo tax mu takk moo tax mu takk dafa war a yokk xeet saafara yëpp xeetu yonent bi te jigéen ñi amuñu xalaat te jigéen ñi amuñu xalaat am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne jëkkër jiy doxaani jëkkër jiy doxaani moo leen gënal moo leen gënal jëkkër jiy takk jëkkër jiy takk te doxaani te doxaani mën naa jur lu ne mën naa jur lu ne lu ne mën na koy lu ne mën na koy dana saaw alal dana saaw alal mën naa indi jàngoro mën naa indi jàngoro mën naa indi yebeel mën naa indi yebeel bàyyi leen nit ñi ñu takk bàyyi leen nit ñi ñu takk bàyyi leen góor ñi bàyyi leen góor ñi ku bëgg a takk ku bëgg a takk na dem takk na dem takki jabar kenn du ko yenu jabar kenn du ko yenu kenn du ko boot kenn du ko boot du portable koy ba ci kër dang koy ba ci kër tey dundam sax tey dundam sax du ya ko yor du ya ko yor wa ma min daabatin fil ardi illa ala llahi illa ala llahi rizqa yàlla neena yàlla neena bo boo gëmee ni boo gëmee di nga dund temeri fa di nga dund temeri fa gëmal ne di nga añ téeméeri fan gëmal ne di nga añ téeméeri fan di nga reer téeméeri fan di nga reer téeméeri fan di nga di ndékki téeméeri fan di nga ndékki téeméeri fan loolu yàlla dénk loolu yàlla dénk ko kenn moo ko téel boppam moo ko téel faj mooy faj mooy feebar mooy feebaral moo tege moo tege moo koy teggee moo koy joxe wërsëg mooy joxe wërsëg mooy xañe mooy xañe ngeen baal ñu ngeen baal ñu jotaay bi yàgg na jotaay bi yàgg kilifa yi war a jël kàddu kilifa yi war a jël kàddu bari nañu bari nañu fa tabaarakallaa sëriñ bi kon kàddu yaa ngi kàddu yaa ngi lim ñu yóbbante woon lim ñu yóbbante woon ëpp na lii ëpp na lii waaye dañoo yërëm nit ñi waaye dañoo yërëm nit ñi ci jotaay bu yàgg rek wassalaamu aleykum wa rahmatullah ñoo ngi wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp sëriñ bi ne ñi ngi baalu àq ñëpp tey baal àq ñëpp di ñaan yal na yàlla sunu borom boole ñu jéggal ci kattanam ak nameelam ak ñeewanteeg sunu borom ci darajay alquranul karim ci darajay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barke sunu sëriñ Maulana Abul Abbas Cheikh Seydi Ahmad tiijan ci barke maam Ahmadou Ndak Seck ci barke jotaay bu tedd bi sëñ bi ne ñi ngi ñaan képp ku fi jugee yàlla na nga jële jëlee njëggalal yàlla yàlla na nga fi jëlee njëggalal yàlla ak yërmande yàlla yàlla na nga fi jëlee ngërëmal yàlla te saa boo ko fi jëlee yàlla boo ko ak moom ba ilaa yawmi diin sëñ bi ne kaddu yi nag kaddu yi gàtt lay doon ndax li gënoon a am solo lépp sunu baay sëriñ Maguette Seck wax na lépp lu jëm ci diine ji jëm ci mbokk gi jëm ci waaraate bi lim ci wax lépp macha allah doy na sëkk yàlla nañu ko dégg te mën koo jëriñoo loolu rek mooy secret bi nee na kaddu yi ñu ciy teg. mooy kaddu Serigne Pape Seck. mooy kaddu Serigne Pape Mourtada Seck ma dikkee. muy jaajëfal Serigne Mass Thiam. kaddu yooyu lañ ciy teg. waaye bu dee waaraate gi. li sunu baay màgget wax. doy na sëkk. ñoo ñu suñu baye Daouda sek ñoo koy siyaara bu baax diko ñaanal bu baax di rafetlu ay taxawayam ndax fi ku fi ñëw rek mom nga fekk si ndax lépp lu xew Dakar muy tuddu dom wala julé néew serigne Madike mom mi la daan yebal motax batay ji motax batay ji serigne pap serigne pap fu mu ñu yebalee fenn. danaan dem leen. bu ngeen àggee ngeen fekk ba seen baay Serigne Daouda. baay Daouda nag moom. daa baax baax goo xam ni. bu ñëwee. danaan sama doom nga. lépp mu tekk sa loxo. kon baay Daouda ñu ngi la ñaanal bu baax. ndax Serigne ma dikkee rek. xoolee sëriñ Alpha Mamadou rek lañ lay xoolee te kenn ku ci nekk xam nga sang baax ak sa woyof loolu ñëpp ma nañ ko seere yal na yàlla gën laa taxaw nee na mbokk yi nga xam ni ñoo maas caam ñoo bokk benn daayira muy daayiratul mujaahidiina wal mujaahidaat muy daayira bi nga xam ni ñoo nekk bitim réew Modou Modou yi. di daayira Modou Modou yi. ca kër Serigne Madické Seck. ca kër Serigne Madické mii. waaye di kenn ci Serigne Madické. waaye di kenn ci Serigne Madické. am taxawaay bu rafet lool. am taxawaay yu rafet lool. moom it ñëw na. moom itam ñëw na. ànd ak Gora. ànd ak Serigne Gora Sarr. Gora Sarr. ànd ak Serigne Gora Sarr. moom ñu ngi koy jox wàccuwaayam. moom itam ñu ngi koy jox wàccuwaayam. di rafetlu ay ay taxawaayam. ñu ngi nuyu sama mag. muy soxna Kiné Seck. muy soxna di taawu Serigne Madické. di taawu Serigne Madické. kon yàlla na yàlla yàggal taxawaay xam na ndax xam na diggante sëriñ ma dikke diggante sëriñ ma dikke ak Baye Alé Thiam ak Baye Alé Thiam waaye xam na xam na sunu yaay soxna Xadi Booy sunu yaay soxna Xadi Booy kollereem kollereem ak soxna Maane Thiam ak soxna Maane Thiam mii sama yaay sama yaay su mënoon a ñëw su ma a ñëw moom mooy ñëw moom mooy ñëw waaye kinne mii mooy ab taawam waaye soxna kinne mii mooy ab taawam gën koo jege gën koo jege mu ni ko bëggoon na maa dem mu ni ko bëggoon na maa dem waaye mënu maa dem waaye mënu maa dem te soxna Maane te soxna Maane kenn la ci man kenn la ci man kenn la sëriñ ma dikke kenn la ci sëriñ ma kër gi kenn la ci kër gi kon demal teewal ma kon demal teewal ma looloo waral loolu moo waral mu jugee cene ba bawal mu ak ñun ñëw ànd ak ñun ñëw kon soxna Mané kon soxna Mané yow ñu ni nga uufee njaboot gi rafet na lool jooyu ñu yaay nee na jooyu ñu yaay jooyu pap jooyu yal na yàlla gën laa taxaw yal na yàlla gën laa taxaw ñoom ña nga àll ba ñoom ña nga àll ba moom ak sëriñ ma dikke sëriñ ma dikke sëriñ ma dikke sëriñ ma dikke tuddee ko sama waajur wayjur sëriñ Madické fonkoon ko lool sëriñ Madické fonkoon ko lool moom Mass Thiam moom ak alaaji Mass Thiam ñu nekk benn ñu nekk benn juboo juboo kenn mënu leen a xàmmee kenn mënu leen a xàmmee ñoo bokk lépp ñoo bokk lépp waaye soxna maani mi waaye soxna maani mi nekk fii nekk fii taxawu leen taxawu leen taxawu koo xam ni taxawu koo xam ni jooyu ñu yaay jooyu ñu yaay jooyu ñu papa jooyu ñu papa ku ñëw sax ku ñëw sax da ngay yaakaar ni da ngay yaakaar ni soxna maani mi soxna maani mi mooy seen yaay mooy seen yaay kon soxna maane kon soxna maane yal na yàlla gën laa taxaw yal na yàlla gën laa taxaw kaddu yi nag kaddu yi nag kaddu sëriñ Pape Seck kaddu sëriñ Papa Seck ma ndax ñun ñii ay ndaw te ñu dem te fu ñu dem kat doom lañ fa nekkee kat doom lañu fa nekkee démb démb alaaji Baara Thiaw alaaji Baara Thiaw ca Thiès ca Thiès da doon da doon ñaanal doomam soxna da doon ñaanal doomam soxna man mii la man mii la sëriñ Papa yebal man mii la sëriñ Papa yebal ma dem ñaani soxna sa mbooloo ma bëri lool mbooloo ma bëri lool man leen alaaji Baara Thiaw mii man leen alaaji Baara Thiaw mii su bëggoon sëriñ Papa Seck ñëw su bëgg waaye mën bitim réew di nga ko seetaan di nga ko seetaan looloo tax looloo tax mu ne Mass Thiam moo mu ne sa Mass xam naa taxawaayam xam naa taxawaayam ci Thiénaba ci Thiénaba waaye xam naa taxawaayam waaye xam naa taxawaayam ci kër sëñ Madické ci moo tax mu ne ay mbiram moo tax mu ne ay mbiram du ma ko négliger du ma ko négliger kon Mar yow ñu ngi lay sant Alaaji Mar yow tamit ñu ngi lay sant di la ñaanal di la ñaanal Serigne Makhtar Diop Serigne Makhtar Diop taxawaay bi rafet na taxawaay bi rafet na nii ngeen taxawoo sëñ Mass nii ngeen taxawoo Serigne Mass rafet na rafet na ci yàlla yàlla faj aajo yi yal na yàlla yokk wér gi yal na yàlla yokk wér gi sëriñ Pape nee na sëriñ Pape nee na kontaan na kontaan na bég na bég na xolam sedd na xolam gi passé gàmmu gi passé ah, moom ma dikke caam moom ak alaaji ma dikke caam ndeysaan dajale teranga yu bëri dañoo dajale teranga yu bëri daal ni ko sëriñ Pape Seck daal ni ko sëriñ Pape na ci seere Ibrahima Diagne mi mën na ci seere ko bu la lii mën nañ la ko jëndal aw nag mu ne waaye dañoo xam ni waaye dañoo xam ni nit ñi nit ñi dañ lay jox nag dañ lay jox nag xaalis bii nag xaalis bii nag ñoo ko jàppale ñoo la ko jàppale ci gàmmu gi. loolu loolu. Serigne Mass Thiam Serigne Mass Thiam. ak Serigne Madike ak Serigne Madike Thiam. noonu noonu lañ taxawee noonu la ñu taxawee. Baye Daouda ñu ngi la koy seede. Baye Daouda Seck ñu ngi la koy seede. Baye Daouda mii tamit. Baye Daouda mii tamit. mat na seede. mat na seede. ci Mass Thiam ci Mass Thiam. ndax Mass Thiam kenn la ci moom. ndax Mass Thiam kenn la ci Serigne Daouda. kenn la ci Serigne Daouda. kenn la ci Serigne Daouda. loolu yàlla mat na ci seede. loolu yàlla mat na ci seede. kon fa tabarakallahu. kon fa tabarakallahu. Serigne Madike nag. Serigne Madike nag. fa tabarakallahu. fa tabarakallahu. yal na yàlla dolli ko njëggal. yal na ko yàlla dolli njëggal. dolli yërmandeem. dolli yërmandeem. Baye Alé Thiam. Baye Alé Thiam. meloon ci sëñ Alpha ni mu meloon ci sëñ Alpha mel ko ci sëriñ Madické mel ko ci sëriñ Madické moo tax ba mu noppaloo moo tax ba mu noppaloo ñoo ngi ko denc cere ba Kajoor ñoo ngi ko denc cere ba Kajoor ngir bàyyi aale ngir bàyyi aale ni mu meloon ni mu meloon ci sëriñ Madické ci sëriñ Madické dafa caam mii di théâtre dafa caam mii di théâtre sëriñ Madické danaan ko sëriñ Madické danaan ko yow naa ko yow sa maam danaan ko yow sa maam ni mu safee woon xorom ni mu safee woon xorom moom nga wuutu moom nga wuutu moo tax nga saf xorom moo tax nga saf xorom kon fa tabarakallah kon fa tabarakallah yal na yàlla dolli wér gi yal na yàlla dolli wér gi yal na yàlla barkeel njaboot yal na yàlla barkeel njaboot yi sunna si sunna si sunnas tudd bi sunnas tudd bi lépp mat na lépp mat na ndax dañ ne sunnas tudd ndax dañ ne sunnas tudd ñett la ñett la muy watara muy watara muy wat muy wat tudd tudd rey gàtt rey gàtt bi fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu lépp jàll na lépp jàll na li ci des li ci des ñool màkk dañ ñool màkk dafa ni inna min xaqil waalidi inna min xaqil waalidi alal waalidi alal waalidi an yuallimahu an yuallimahu alkitaaba alkitaaba wa an yuxsila wa an yuxsila ismuhu ismuhu wa an yuzawijahu wa an yuzawijahu isa balaxa mu ni boo amee doom muni bo amé dom doom àq la ci sa waajur ci yow wajur bi ci dom ji ci dom ji nga wutal ko tur wu rafet nga wutal ko tur wu rafet tur wo xamni ne tur woo xam ni ku ko dégg ku ko deg dina ci contane dina ci contane bu loola jalle bu loola jalle bu amé juróom-ñaari at bu amé juróom-ñaari at nang ko yóbbu dara nang ko yóbbu dara xamal ko téré yàlla xamal ko téré yàlla bi xamni boko boo te xamni boko boo responsabilité bob responsabilité bob sa loxo la nek sa loxo la nek waye nak wa an yu zawijuhu waye nak wa an yu zawijuhu isa balaha isa balaha bu démé ba mata am soxna bu démé ba am mat am soxna takkal ko soxna takkal ko soxna waaye ku jigéen ki waaye ku jigéen ki su waree dem sëyi su waree dem sëyi na nga ko maye na nga ko maye mu dem sëyi mu dem am borom kër dem sëyi waaye lii moom waaye lii moom responsabilité la boo xam ne responsabilité la boo xam ne ci waajuram ci waajuram war na ci moom doomam war na ci moom ak doomam boo ko defee boo ko defee xam nga xam nga boo ko deful boo ko deful xam nga xam nga waaye kenn ku nekk waaye kenn ku ci nekk sëñ ma dikka daan wax naan sëriñ ma dikka sekk borom yàlla nee na dafa daan wax naan bëri na koo xam ne bëri na koo xam ne danaan sama doom ji danaan sama doom ji moo tas sama yaakaar moo tas sama yaakaar yaakaar te nee na fekk yow miy baay fekk na yow miy baay ba yaa tas yaakaaram yaa tas yaakaari doom ja ndax nee na sa baay ndax jàngal la teg la ci yoon boole la kër sëriñam boole la kër sëriñam nee na fa mu jaarale nga am sa doom nga am sa doom jaarale woo ko foofu kooko dem ba nekk mag kooko dem ba nekk mag jël yoonu boppam jël yoonu boppam xamul luy mbaax xamul luy mbaax luy lu rafet xamul luy lu rafet nga naan sama doom ji nga naan sama moo tas sama yaakaar moo tasul sa yaakaar nee baayam yow baayam yaa tas yaakaar yi doon jaarale fa la jaarale boo ko fa jaarale woon rek mu wàcc mu wàcc waaye comme jaarale woo ko fa yaa tas yaakaar yaa tas yaakaaram kon fa tabarakallahu kon fa Biram Seck Serigne kenn ci Serigne Maguette di kenn ci Serigne Maguette moom it ñu koy nuyu moom itam ñu koy nuyu di ko ziyaare di ko ziyaara di ko jox di ko jox digganteem ak ak Serigne Maguette ak Serigne Maguette Seck fa tabarakallahu sëñ Madické waxoon na Serigne Madické waxoon na nee na sëñ Abdou Lahad Mbacké nee na sëñ Abdou Lahad Mbacké dañu ko woon Madické dañu ko woon Madické mu ni ko Seck mu ni ko Seck mu ni ko li ma lay dénk mu ni ko li ma lay dénk mooy na nga fexe mooy na nga fexe ba am sa ngërëmal waajur ba am sa ngërëmay wayjur boo xasee am sa ngërëmal waajur boo xasee am sa ngërëmal wayjur man mii di sëñ Abdou Lahad Mbacké man mii di sëñ Abdou Lahad Mbacké ak ku mu mën a doon ak ku mu mën a doon buñ la gërëmul buñ la gërëmul bul ko faale bul ko faale waaye ku la mën a gërëm waaye ku la mën a gërëm te sa waajur gërëmu la te sa waajur waajur gërëmu la du tegu fenn du tegu fenn waaye adduna bépp waaye adduna bépp buñ la gërëmoon buñ la gërëmoon te sa waajur gërëmu la sa waajur gërëmu la amul benn solo amul benn solo mu ni ko li ci des mu ni ko li ci des muy na fexe ba na am jom ba na nga am jom ndax nit ku yiw ndax nit ku yiw day am jom sëñ ma dikke ni sëriñ ma dikke ni dara jarul xeex nag dara jarul xeex nag lu dul na ko lan moo jara xeex ñu ni ko moo di ko lan moo jara xeex mu ni yaa ñàkk jom jom ku ñu xool ba ni la ku ñu xool ba seppali la ni la yaa ñàkk jom yaa ñàkk jom moom kookaa jara xeex kookaa jara xeex kon yal nañu yàlla may jom kon yal nañu yàlla may jom waaye ñu am sunu ngërëmal waajur waaye nag ñu am sunu ngërëmal waajur moo tax sëñ ma dikke nee na moo tax sëriñ ma dikke nee na lu ma am lu ma am gannaaw yàlla gannaaw yàlla am sama ngërëmal waajur am sama ngërëm may waajur moo ma ko may moo ma ko may kon yal na yàlla faj kon yal na yàlla faj aajo yi Pape Adama Sylla Pape Adama Sylla di kenn ci mbokki taalibe yi kenn ci mbokku taalibe yi nekk fii nekk fii di rakk Moustapha Sylla di rakk ci sëriñ Moustapha Sylla nga xam ne moom ñoom Mass Thiam nga xamante ni ñoom ñoom Mass Thiam benn lañ benn lañu du ñu ñaar du ñu ñaar moom mi ngi waaye soxna Aram Silla mi ñu tuddee xale bii mi ñu tuddee xale bii ku jàmbaar la ku jàmbaare la ku am taxawaay ku ami taxawaay la ku xam maas taxawaay la ku ami taxawaay la soxna Aram soxna la la ak sa rakk ji ak sa rakk ji ñii ngénte ñii ngénte soxna Déthié soxna Déthié di soxna su ma dikkee di soxna su ma dikkee moom it ñu ngi koy nuyu moom itam ñu ngi koy di ko jox wàcc waaye di ko jox wàcc tuuti même Ibrahima Diagne même Ibrahima Diagne daal di dugg si waat daal di dugg si waat fekk Maguette Diop fekk Maguette Diop mi ngi toog ak njol màkk mi ngi toog ak njol màkk sallallahu mu ni léegi nag mu ni léegi nag Ibrahima Diagne mii Ibrahima Diagne mii toog naa ak njol màkk toog naa ak njol màkk mu ni saa bu ngeen gisee njëkk a dugg ji rek ku a dugg si xam leen ni xam ni kooku nitu àjjana la nitu àjjana la ñaar yëpp te ñaar yëpp Ibrahima Diagne Ibrahima Diagne la moo njëkk a dugg moo jëkk a dugg léegi Ibrahima Diagne nii nag Ibrahima Diagne nii nag dinaa ko topp dinaa ko topp ba xam ba moom guddi gi moom day fanaane naafila day fanaane naafila wala day fanaane jàng alxuraan day fanaane lan lay fanaane def wala lan lay fanaane ñu julliti sa pare nee na ñu julliti sa pare julli gee julli gee ah, Maguette Diop Maguette Diop ànd ak Ibrahima Diagne ànd ak Ibrahima Diagne ñu dem ba këram ñu dem ba këram ñu julli gee ñu julli gee mu reer mu reer Ibrahima Diagne nelaw Ibrahima Diagne nelaw moom it mu nelaw moom it mu nelaw bi ñu jullee fajar ba noppi nee bi ñu jullee fajar ba noppi màgget ni ko màgget ni ko man damaa gis ñaari yoon man damaa gis ñaari yoon njol màkka ni njol màkka ni ku ngeen gis mu njëkk a dugg ci ku ngeen gis njëkk a ci jàkk ji xam leen ni kooku nitu aljana la xam leen ni te yow yaa njëkk dugg ci ñaar yow yaa njëkk a te xam naa ni yow lay waxal te xam naa ni kon yow lay waxal ndax njol màkka ndax njol màkka dara jaaxalu ko dara jaaxalu ko te lépp la xam te lépp léegi nag damaa bëgg a xam léegi nag dama bëgg xam yow Ibrahima Diagne yow Ibrahima Diagne ndaxam da ngay alxuraan wala da ngay jàng alxuraan te gis naa biñ julee gee te gis naa biñ julee gee maa ngi yow ñoo bokk fu ñu tëdd yow ñoo bokk fu ñu ñoo bokk yeewandoo ñoo bokk yeewandoo kon lu waral loolu kon lu waral loolu bi ko waxee loolu nee bi mu ko waxee loolu ko waxee loolu nee bi mu ko waxee loolu waaje ni ko waaja ni ko. man de xaw ma ban jëf laay def. man de ma ban jëf laay def. waaye jëfuma benn jëf. waaye jëfuma benn jëf. boo xam ne julli ñu xam ne julli ñu jëf ñu. ñun ñëpp def rek daal ñun ñëpp def rek daal. laay def mu ni kon lu tax nga nekk nitu ajana. mu ni ko xam naa ni daal. mu ni ko xam naa ni daal. loo xam ni. loo xam ni. maa ngi koy def. maa ngi koy def. ci sama xol bii ci sama xol bi te dëgg la ci man dëgg la ci man. mu ni ko loolu laa bëgg a xam mu ni ko loolu laa bëgg a xam. ndax dafa yaakaar ni. ndax dafa yaakaar ni. ay naafila la ay jàng alxuraan julli ci yonent bi wala ay julli ci yonent bi mu ni ko leen daal laa xam ni mu ni ko leen daal laa xam ni mi ngi ci sama xol mi ngi sama xol bi te moom guddi ak bëccëg te guddi ak bëccëg maa ngi takkoo ak moom maa ngi takkoo ak moom mu ni ko lool lan la mu ni ko lool lan la mu ni ko sama xol bi mu ni ko sama xol bi fexe naa ba ñëpp fexe naa ba ñëpp laa ci yéen a jàmm laa ci yéen a jàmm yéenewu ma kenn safaan yéenewu ma kenn safaan mooy li sëñ Maguette wax mooy li sëñ Maguette wax ni fekk sa jullit matul mu ni léeg sa ni fekk sa jullit matul fekk sa jullit matul rek fekk sa jullit matul rek sa xol laa bëggul sa xol laa bëggul balaa sa jullit mat rek balaa sa jullit ak mat li nga yéene sa bopp li nga yéene sa bopp da nga koy yéene ñëpp da nga koy yéene jullit yëpp waaye koo yéene jàmm waaye koo yéene jàmm yéene sa bopp jàmm yéene sa bopp jàmm ñi ci des moom ñi ci des moom yéene woo leen jàmm yéene woo leen jàmm sa borom kër sa borom kër nga yéene ko mu tekk nga yéene ko mu tekk sa soxna say soxna nga yéene ko mu tekk nga yéene ko mu tekk sa doom sa doom nga yéene ko mu tekk nga yéene ko mu tekk te yow yéene woo ko njaboot te yéene yow yéene woo ko njaboot du tax nga am jàmm du tax nga am jàmm moo tax sëñ Madike ni moo tax Cheikh Madike ni ku bëgg a am jàmm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 daara ji te Shamsu TV la ni bégee ay waay di ko bégee waay ba aljana ana waa daara ji Shamsu TV ay ba aljana